bu ñu ñëwee fii biir Sine comme ni ko defee léegi dañ koy rendre hommage waaye rendre hommage soxnaam suñu sœur Adja Mariam Faye Sall jigéenu Fatick xam nañ li may wax lu ne def na ko fi ci lu baax ci biir dëkk bi monsieur le président Amadou Ba samay sœur Adja Mame Mariam Thiam Babou mu ngi nii toog Ngoone Fall Baro mu ngi fii Aïda Diouf Ndiandiaye mu ngi fii Aïda Diouf tout mu ngi fii les femmes du département les honorables députés Mame Fatou Ndiaye Adama Thior ak ki nga xamante ne aussi mooy en tout cas les Khady Thiam Seck ñëpp suñ la waxee ne dinañ la gëm ko nga bind ko nga xam ne le dimanche 24 incha allah dinañ ne wéew Amadou Ba premier tour. premier tour premier tour premier tour premier tour xam ngeen lu tax Palo xam ngeen lu tax vous êtes le candidat la continuité xam nga lu tax président Macky sal moo ñu la dénk xam nga lu tax Fatick gii

Monsieur le candidat, nous avons en face une opposition qui manipule la jeunesse. Nous ne une la qui manipule ci réew Nous muy ndox muy yoon muy courant muy nous allons voter la continuité la continuité c'est voter le candidat Amadou Ba jigéen ñi yéen ñi nekk ci kaw gi suñuy mbokk xam ngeen président Macky Sall am na fu mu leen andi kii taxaw dina continuer ak yéen pour Sénégal gën a naat gën a neex jërë ngeen jëf. rek pareeguma ci yow